alors chers internautes dis-nous ko euh, Mme Chafal, comment donc moom moo gagné li nga xamante euh, national challenge série fii Stadium stadium euh, Amadou Barry alors champion. oui ça va. est ngi titre champion bi dafa oui la neex parce que liggéey bu ñu fait. de la du liggéeyu un mois deux mois presque un an et demi ñu est ci nekk si pratiquer kon kon yoon la tey jii résultat nga gagné victoire fii ci stadium Amadou Barry euh, mu nekk sa fief yeneen club yoo dañoo jóge ci yeneen région ñëw fii nga jongante ba ci li nga mën final bi yan jàngat ngay tiire tey waaw am naa ci jàngat bu bëree bëri parce que tey jii ñu jóge ci région yi peut-être dese nañ tuuti expérience affaire yooyu noonu mais tamit ñun jàngat nañu tey jii première ñu mu nekk suñ première participation ci tournoi teg bool ñun tamit am nañ ci tuuti expérience parce que bo xolé ni ñuy jouer sax par rapport aux les autres day am différence loolu lu ñu yagal a liggéey la à l'entraînement xol vidéo yi yooyu yëpp tey jii moo indi li li wax jangat bi leen la rek moy expérience bi ñu ci am tey jii nii moo tax nañ ci trop trop trop ak équipe beeg ñep voilà loolu la ci amoon daal. daal mën nañu wax ni expérience motax nga dóor sa adversaire si si expérience ak technicité tamit parce que jeu bi tamit c'est pas voilà du du passante rek am na ay nooy marqué ses points am noy déplacer peut-être expérience ak technicité loolu tey ji moo ñu may lii nii. compétition bi daf permettre ñu détecter teekër yi gën a mag ci Sénégal composé équipe nationale bi dem ci li nga xam moo di coupe du monde 2021 bi sa objectif lan la. waaw objectif bi jàpp naa ne tey jii ñëpp xam nañ ko lu dul fexe représenter Sénégal au niveau international tey jii boo xoolee ci liggéey boobu la ñu yàgg nekk boo gisee tey jii niveau bii ñu am boo xoolee liggéeyuñ ko pour Afrique dañoo liggéey tey jii pour représenter Sénégal au niveau international jëm fa lu mu dee indi trophée Sénégal voilà loolu moo nekk lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu rêvé pour Sénégal te incha allah dañ yokk travail yokk liggéey bi ba incha allah jot loolu. ñu ngi koy jaajëfal bu baax euh, Mam chef félicitations encore une fois euh, euh, champion bi dama lay bàyyi nga introduire parce que dañuy fair play tamit Guédiawaye tey dafa gagné. Guédiawaye dafa gagné doublement par rapport ak ak ak li nga xam modi moo final bi euh, tay nga daal perte li nga xam te final bi mais euh, tay on va dire que ne du sax défaite parce que euh, final 100 pour cent Guédiawaye c'est inédit ci bép compétition hein, ci mu baña nek nekk tegbal wala dara mais tay yow lan nga jang ci compétition. bon d'abord ma ngi leen di nuyu di féliciter sama coéquipier Mam Cheikh nga xamné ne ak sport bi mu commencé développer fi ci Sénégal ba légui ñoo ci and di ci liggéey ba yàlla def tey ñu organiser ben compétition maak mom ñu dem ci final quoi déjà lool rek fierté la bu mag parce que yag nañ def ay prestations yu bari deug la quoi. tay kon mën nañu wax ni euh, tegbol buñ koy euh, seet ci Sénégal fan la plus fort yi gëna a nekk dañuy ñëw Géejawaay. waaw mais bien sûr parce que wa waa euh manam fi la affaire yi dalo quoi manam ñun ñoo am sens de recevoir les premières tables moo tax euh, chance bi ñu si am ak expérience bi ñu si am moo tax tey jii maa ngi moom ñu dem final parce que ñeneen ñi tamit peut-être mënuñu leen mais dañ leen ëpp expérience affaire bi quoi de temps en temps nag bu ñu gën di dem peut-être après expérience bi dina ñëw. discipline bu bees la ci Sénégal jamono gi lan mooy objectif bu Sénégal ci compétition yu mag yooyu nga xamante mi ngi xaar. Euh, réew mi ak yeneen i réew yu gën a mag yoo xamante peut-être teg bol fa la commencé bu yàgg bon sport la comme yeneen sport yi hein, li ñu siy xaar mooy euh, évoluer niveau international comme les autres sports loolu te gëm nañ ne buñ ciy continuer ni inshallah allah am nañ bu rafet parce que amna talent bi quoi parce que bo xolé tay liñ fi indi si ay joueurs ñu compétir vraiment talent bi mi ngi fi quoi te buñu amé amee ah, ah, euh, nu tay sax jappalé ci kanam affaire yi dina gëna dina gëna yomb si ñun daal. maa ngi leen di jaajëfal bu baax di leen dig dajé ba suba ci euh, double non, du noonu d'accord ok merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal bu baax alors euh, mbokk yi lii lañ leen indi loon ci li nga xam te national challenge série bi euh, fii ci stadium Amadou Barry donc tey compétition bi c'était en single suba la ñuy def li nga xamante moo di en double doublement, double moom ku ko dégg xam deux joueurs là. donc ñoom ñooy ñëw suba ci li nga xamante moo compétition en double bi tey nag Guédiawaye wane na boppam ci li nga xamante moo di moo compétition bi Euh, parce que euh, ay joueurs am ñoom ñoo daal di def euh, li nga xam moo di final bi deux clubs de Guédiawaye ñoom ñoo daal di disputé final bi suba ñu xool lan la ñu national challenge série bi dañu indil di leen jaajëfal ba suba incha allah ci wiwsport point com jaajëf.